أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa M Media Group Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc-rëcc te nu ñu suñu jaamu yàlla te at mu bees mi ñu dugg mu defal ñu ko atam xéewal ak jàmm ak wér ak fekk ak tal ak mujj gu rafet jaamu yàlla ko nungu njëggalu bakkaar du jaay saydil wujud sallallahu alayhi wa sallam te defal ñu ay xiwal yu kaw suñu njortu yu ñu gën a mën a jéem a liggéeyal islaam du jaay saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon tey fatwa bi ñu jéem cee duggat rek waaye comme noonu ñu waxaan ci ndigalal kilifa bu muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yal na ko yàlla doolu wér ak kattan ak may ko lu kawe njortam ci li mu bëgg liggéeyal maam Xadim la Rasul lépp mu mën koo liggéey te nu ànd ko ak moom su ko defee fatwa bi it ñu bëgg ci jiit la rek comme lenn ci mbindam Xadimu Rasul moom nga xam ne mii da ko bind mu bari lool mënee su ko matale mënee su ta xam lépp mënee su koo dajal muy wax ci wàllu alquranul karim di dina ci jàngal ay njariñ yoo xam ne yi moom xaadim rasul yàlla da ko ko defal te mi ngi ko jaare ci fonk goo xam ne gi fonkal na ko alquranul karim di ko jàng njariñ yooyee doon njariñi àdduna ak alaxira mu leer naññ ci ñun ñëpp ne lii moom yàlla defal na ko xaadimu rasul njariñ yooyu nag tamit xaadim rasul wëlbatiku bindal nu ko fii bàyyil nu ko fi nga xam ne dane lii moom lu ma seq ak sama borom la mu may ma ko ci alxuraanul karim te leer na naññ ndax defal na ma ko te ku nekk xam na ne loolu defal na ma ko loola it mu doon ay njariñ yoo xam ne yii bëgg naa itam képp ku di sama taalibe waaye képp ku di jullit maanaam njariñ yooya nga mën koy jariñoo kon xam naa dañuy xoolal rek lenn ci ay mbindam yoo xam ni andi na ko ci wàllu alxuraan woowu ñu gën cee fàttalikoonte rek gën cee soññewaat ngir téere bu sell boobu di alxuraanul karim ñu gën cee mën a góorgóorlu suñu kéemtalaay kattan nga xam ne luñ ci góorgóorlu rek luñ ci farlu ci fonk ko ak jàng ko ak yittewoo ko ak di ko bàyyi xel loola doyut kon yal nañu yàlla doolu defal tawxi ba téere boobu di alxuraanul karim daal lu nu sàggan sàggan rek comme noonu mu ko diglee ne yow taalibe bi lum néew néew bés bu nekk na nga fexe ba jàng ca lum néew néew ñetti isib daal loolu yal na ci yàlla jàppale ban man cee sax ci suñu giir gi dund bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam te lépp loo xam ne li ay njariñ la ca it yàlla defal ni ko ci comme ni ma ko defalee maam xaadimu rasul nafaana allahu bi barakaatihi amin kon ñu ngi jàng ci mbindam maam xaadim rasul moomu mu ne képp koo xam ne kii da nga bëgg loo bëggati mu dëppoog li yàlla bëgg waaye tamit da nga bëgg yow ci sa bopp sayyiduna muhammad nekk ko xam ne kii ku bëgg ci yow lay doon ne ne na nga saxoo ak jàng alxuraanul karim ndax ne ne man jàpp alxuraanul karim fonk ko di ko jàng ci laa demee ba yàlla defal ma lépp loo xam ne li sama bëgg-bëgg la rek day dëppoog bëgg-bëggam yàlla waaye itam dama dem ba nekk mbégte ñeel sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu daal di wax moom xaadimu rasul ne muraadu xal bii muraadullaahi maa masarrati rasuulillaahi ne man daal dem naa ba sama xol lépp loo xam ne lii moom laa bëgg rek day dëppoog la yàlla bëgg waaye tamit dama dem ba nekk mbégteel sayyidina muhammad moomu sallallahu alayhi wa sallam te ci jàng alxuraanul karim la ma ko yàlla maye yàlla xaadimu rasul daa di waxaat ne képp koo xam ne kii daal bëgg nga am darajaay ay leer yoo xam ne yii boo deetee xalaat dara da ngay jàkkaarloog da ngay mucc ci ay caaxaan ak ay tooñaange daal dana képp koo xam ne kii bëgg nga aaye teg la foofu maanaam nga mucc ci ay caaxaan mucc ci ak tooñaange goo xam ne gii boo ca namee jublu day am secret boo xam ne bi mooy tax doo ko mën a def ne na nga sax ci jàng alxuraan karim mu ne tursidu nii fi laxihi wal xalami ayaatu murnin an laxan wa zulami ne ne loolu ñu wax lawxul mahfuus nga xam ne yàlla li muy sàkk lépp foofa la ko bind secret yëpp foofa la ko bind ak ak xalima ga nga xam ne ki ne ne mooy bind ne ne alxuraan ju yi may jàng nii ne ne aay yooyu moo may gindi di ma won lawxul mahfuus googu di ma ca ma di ca am ay secret yu bari yoo xam ne yii damay gis ne lii mooy dox sama diggante ci lépp loo xam ne li ay caaxaan la ak ak bew waaye lépp loo xam ne lii ak tooñaange la daa di waxaat na itam soo bëggee am ay xam-xam yoo xam ne xam-xami secret la yoo xam ne yi xañ na day jaaxal nit ñi ndax fañ koy àgg ci xam-xam day xóot lool day sori lool day bari lool day yaatu lool ci fànn yu baree baree bari ne ne na nga sax ci di jàng alxuraanul karim soo ko defee rek di nga am lool muy rafaanil kitaabu duuna ray bi walifu aadi xaada ilmal ray bi ne ne téere bii daal di alxuraan yëkkati na ma yëkkati goo xam ne gi kenn sikki sàkkaatu ko tayit ne ne téere bii dama sax di ko jàng ba maanaam xam-xam yoo xam ne yu làqatu la sax yoo xam ne ñu baree bari ci mbind fi yàlla yooyu mënuñu koo xam ne ne ommatal na ma jox ma xam-xam yooyu daa di waxam ne tursi ani nisyaani wa takassuli kitaabu muxnin jaadali bi asali ne na itam yow mbokk yow taaliba bi soo bëggee dootoo fàtte wala sa fàtte dootul bari waaye itam soo bëggee doo tayel ci jaamu yàlla tey sawar ci lépp loo xam ne lii ak jaamu yàlla la ne na na ngay saxoo di jàng téere bi nga xam ne bi mooy alxuraanul karim ndax ne ne boo saxoo di ko jàng di nga dem ba lu baree bari dootoo ko fàtte waaye tamit dootoo tayel ci genn jaamu yàlla waaye tamit da ngay dem ba yàlla defal la ci ay xéwal yoo xam ne yii sa xéwal yooyu day neex ci yow day bari ci yow ba am neexaango neex gu mel ni comme ak lem ni mu neexee nga xam ne gépp xéwal goo am rek di ko jëfandikoo noonu lay neexa ci yow ne ne boo saxee ci téere bi rek loola mën nga koo am xaadimu rasul waxaat ne baqara li siral xurufi man katab kaw ne yaa waari xel ma sunu fan katab xaadimu rasul ne ne ki nga xam ne kii moo bind lépp te mooy yàlla subhanahu wa taala ubbil na ma secret arafi alxuraan ya nga xam ne bi ma ko toppee di ko jàng yittewoo ko mu nekk sama yitte rek dama dem ba nekk ki nga xam ne ki man maa doon alxuraanu karim te ne loolu bi ko yàlla bi ma ko yàlla ubbilee moom miy bind lépp ne na loolu bindu na maanaam lu saxa sax la maanaam nga xam ne yàlla da ko defal ci alxuraan ci araf yi ay secret yoo xam ne yu baree bare ndax foofu ne alxuraanu karim benn araf bu mu ci mën a doon rek yàlla denc na ci ay araf yoo xam ne yi maanaam mbindeef mënta bari xam-xam ba xam secret yoo xam ne moo nekk ca arafi alxuraan yooyu mooy wenn araf bu mu mën a doon nag mooy tàmbalee ci alifun baaun taaun ba keroog juróom ñaar fukki araf yi ak juróom-ñett di jeex nee na alxuraanu karim benn araf bu ci nekk rek la ca yàlla di denc ci ay secret maanaam doomu aadama mënta xam lépp te nee na nag man sax naa ci alxuraan di ko jàng yittewoo ko ba wenn arafu nekk rek yàlla xamal nañ leen ci ay secret yoo xam ne yu baree bari la yu xóota xóot la yoo xam ne yii dafa am solo lool dafa yaatu lool daa di waxaat ne xiraatul xoraani safat umri an zi wisaratin waan mu amari xaarim rasul ne ne jàngi ma sax di ko jàng alxuraan te yittewoo ko ne ne dem na ba sell sama dund gi ba benn nëx nëx rek maanaam amatuma ko ci sama dund te it njàng moom mu ko jàng dem na ba ñi nga xam ne ñi ay buuri àdduna lañu sax maanaam mën a luñ ma dara maanaam lu ñu mën a bari ay pexe ak lu ñu mën a am ci ak kattan ak ay pexe yoo xam ne dañ koy fexeel nga xam ne ñi ci ëpp ay nooy nit yi diine ñi la ñu doon dana ñoom kilifaay àdduna yi sax ñooñu njàng may jàng alxuraan yàlla doxal na sama diggante ñoom ay secret yoo xam ne maanaam dara mën a luñ ma ko daal di waxam ne isa xaratu farra bil xisbillahin ila siwaaya wa yazuduhul moin ne ne seytaane mi nga xam ne mii mooy suñu noon bi gën a màgg ne ne saa bu ma ubbee téere bi rek muy alxuraanu karim ma tàmbali di jàng rek iblis moom day daal di meebu ak gaayam daw daal di wane ginnaaw daw di dem tey ne ne kii daw googu muy daw di dem yàlla da koy gën di puus di ko gën a jiñ mu jëm ci keneen ku dul man te njàng mi nga xam ne moom la jàng alxuraan ci la ma ko yàlla defale daal di waxal ne aayatu rabbi zahzahat idaaya illa siwaaya wahadat hudaaya ne na aay yi nga xam ne moom la yàlla wàcce te mooy alxuraanul karim ne na dàq na sama yëppi noonu nag jëmale ci ko jëmale leen ca keneen ku dul man tayit ne ne jub gi nga xam ne kii moom la ma yàlla defal yàlla dama ci gindi defal ma ci won ma ci yoon woo xam ne wii mooy yoon wi nga xam ne wii mooy asiraatul mustaqim nga xam ne yoonu xocc wi mi nga xam ne moom la yàlla soxla na ne yàlla won na ma yoon wu ba teg ma ca te maa ngi ko amee ci jàng bi nga xam ne bii moom lay jàng alquranul karim mu ne ida xaratu sumanan aw rubaa aw nisfan aw waqar rawitu musbia xaadim rasul ne ne alquran bi fii day li mu waxal ne lu mu néew ne day ci jàng ñetti isib bés bu nekk bañ koo jël xaadim rasul ne ne fonk naa alquran di ko jàng ba su ma ci jàngan ab sumun wala ma jàng ci ab ruboo wala ma jàng ci ab xaaj wala ma jàng ci ab waxaf rek ne damay daal di màndi su fekkee ne dama nekkan ku mar waaye itam damay daal di regg damay daal di suur bu fekkee ne dama nekkan ku xiif nga xam ne alxuraanu karim ñi koy xam dëgg ci wàllu googu nga xam ne dañ koy def ay xaaj maanaam boo jëleen isib bi rek benn isib bi dañu koy def juróom-ñetti xaaj def ko ñeenti xaaj wala def ko ab xaaj ba bu jeexee moom la ñuy wax waqfu ne ne nag man bi ci gën a néew te mooy sumun mooy juróom-ñe boo ko defee juróom-ñetti xaaj ne ne benn xaaj boobu su ma ko jàngee aw rubaar wala ñu def ko ñeenti xaaj ma jàng benn xaaj bi aw nisfan wala ñu xaaj isib bi def ko ñaar ma jàng benn bi aw waqfan wala mën a wala ma jàng isib bi ba mu jeex rek ne ne su ma ko defee rek su fekkee ni dama maran damay daal di mandi de mel ni ku naan waaye tamit maanaam mandi comme boo mën a naan am ndox waaye tamit ne ne bu fekkee ni dama xiif itam sama xiif boobu day daal di dañ kon lii itam yenn ti bayit la yoo xam ne yii dañu ko jële ci mbindam xaadimu rasul mi nga xam ne nii lépp da koy wax rek muy jëm ci njëriñi jàng alxuraanul karim te xaadimu rasul ne ne bi muy wax lii ne ne dama cee jaar ba jàll gis njëriñ yi nga xam ne yi moom la ma defal moo tax ma bidd ko waccal leen ko fi ngir yéen itam su ngeen ko toppee di yittewoo alxuraan di ko jàng fonk ko di ko sel rek yàlla itam da leen ci def ay tawfeex yu rëy rëy yoo xam ne yi faw da ngeen koy am ndax loolu ay mbóot la ay secret la yoo xam ne yi yàlla mi ngi ko denc ci jàng alxuraanul karim kon ku ca sax rek di ko jàng te yàlla tax faw rek ak nu mu mën a demee yàlla dina def la ay xéwal ak i tawfeex ak ay secret ak ay leer yoo xam ne yii dina am loo ca yëg sax waaye la ca ëpp sax doo ko yëg mu nekk lu nëbbutu ci yow loo xam ne lii ay mbóot la ay secret lay doon yoo xam ne yii sa diggante ak sa borom lay doon kon mbokk yi alxuraanul karima ngoogu ak i njëriñam kon yal na nu yàlla doo la defal tawfiix ba ñu mën ci góorgóorlu suñu kemtalaay el kàttan luñ ci man rek maanaam ñu di ko jàng tey luñ ci mën a seetantal itam ngir xam ko ñu jéem koo xam ndax mooy gën a doon li nga xam ne mooy gën a tee am solo njàng mi noonu rek baax na rëy na lool am na solo lool ndax secret yaa ngi ci biir waaye tamit di jéem a xam li alxuraan ji waxi tamit day dollikuwaat ay xéwal yoo xam ne it maa ngi dem mooy gën a tee barkeel mooy gën a tee bari mooy gën a tee am solo ndax xaadimu rasul mi ngi wax ci mbindam ne benn aaya donc soo ko jàngan settantal ko ba xam la aaya bay wax ne ne mooy ëpp njariñ boo jàngan kaamil bi yëpp muy alxuraan bi yëpp te xamoo la muy wax yëpp a baax nag waaye kon bii itam jàng di xam li alxuraan ji di wax gën a baax mbir nag lu mu baax baax dana am loo xam ne ni moo koy gën a baax kon nañuy jéem a góorgóorlu ca lépp loo xam ne ni lu baax la rek ñuy jéem a am lu baax loole waaye itam di jéem a am la ca gën a baax yal nañ ci yàlla dooloo defal tawfiq bi jay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy jéem a dugg ci fatwa bi rek te laaj bi ci jëkk mi ngi laaj xukmu man zana bi imraatin summa tazawajaha mbokk mi day laaj lan mooy àtteb ki nga xam ne kii daa njaaloog jigéen ba pare wëlbatiku daal di koy takk mu nekk jabaram maanaam mu nekk soxnaam loolu lañ ko cay tontu mooy azzawaaju saxiixun ida xarajat min iddati zina wa taabat min amaliha assayi'i sharia dane nit ki day bu njaaloog jigéen du tere mu mën koo takk mën na koo takk waaye nag rek bala mu koy takk day xaar ba njaalo googu mu njaaloog moom nga xam ne soxna si dafa war a am idda ju leer na ñu ne moom fi mu ne ëmbatut mu dog koo mën a takk kon daal ki njaaloog jigéen daal ba ci yàgg si mu wëlbatiku bëgg koo takk daal loolu sharia lungu na ko waaye tamit nañu xaar ba soxna si tollu jamono yoo xam ne yi ku ñu mën a takk la bu ko defee bu boobaa mu mën koo fas ñu fasal ko ko ci sharia te it ne ne loolu itam bu amee ñoom ñaar nañu góorgóorlu ba bàkkaar boobu ñu defen te mooy njaaloo maanaam ñu tuub ko dellu ci yàlla fas yéene maanaam loolu dootuñu ko def ci seen giir gi dund ne loolu itam day bokk ca charte yi nga xam ne day gën a dëgëral ñoom ñaar ñu daal di mën a dencan te beneen laaj bi ci toppaan mu ne day laaj limaza zakarallahu azzaniyata xabla zani wa saariq xabla saariqati itam day laaj ne dafay gis ne alxuraanul karim bi muy wax ci wàllu njaaloo dafa tudd dafa jëkk tudd njaalookat bu jigéen dog a wax njaalookat bu góor waaye alxuraan bi muy wax itam ci wàllu sàcc dafa jëkk a tudd sàcc bu góor jëkk a tudd dora doog a tudd sàcc bu jigéen muy laaj nag lu tax bu dee ci njaaloo la mu jiital jigéen doog a wax góor bu dee ci sàcc la mu jiital góor doog a jiital jigéen waaw loolu dañ ko ci nag qad nassa ahlul ilmi ala anna min asbaabi taqdimi fi alqur'ani alkarimi alxalabata walkasrata borom xam-xam yi dañu bind ne bokk na ci li nga xam ne li sabab na li sabab yàlla di jiital mbir ci alquranul karim maanaam yàlla bu dee tudd ñaar ñaare ci alquranul karim maanaam la muy jëkk a tudd ñaare maanaam mooy nekk la gën a bari wala mooy nekk la nga xam ne li moo not maanaam alxuraanul karim su fekkee ni day wax ñaari mbir bu ñuy seetlu la mu jiital mooy gën a bari lam ca teg comme ni mu ko wax fii njaalookat bu jigéen bi ak njaalookat bu góor bi sàcc bu góor bi ak sàcc bu jigéen bi maanaam yu mel noonu bu ko alxuraan di waxee ñaari bari noonu bu ci jiitu rek dañ ne maanaam ba mu jiital daal moo not moo gën a bari moo ëpp kon ne ne kon looloo tax ne ne fas sarixatu fi rijaali aksaru wa dawaa zina fi nisaayi aksaru ñoom borom xam-xam ne ñu ne dañoo seetlu ne bu dee ci wàllu sàcc la daal góor ñi ñoo gën a bari lu ñuy sàcc waaye bu dee ni wàllu njaalu la yi tamit ne ne jigéen ñi ñoom ñoo gën a taxaw taxawaayab maanaam luy suttal njaaloo ñoom ñoo ca gën a taxaw maanaam ñoo ca ëpp lañ cay def ngir njaaloo googu mën a sotti kon gis nga loolu mu wax ne bokk na ci saway li tax yàlla di jiital mbir muy day faat mu wane ne la jiitu lam jëkkatu du moo gën a bari gis nga buñ ko seeloo ne ne ci wàllu sàcc dañuy gis ne ci góor ñi la ëppee waaye bu dee ci wàllu njaaloo la itam maanaam ci jigéen ñi lay ëppee ne ne kon bokk na ci lenn loo xam ne tax na yàlla wax njaalookat bu jigéen bi jiital ko da ko wax bu góor bi waaye tamit wax sàcc bu góor bi jiital ko doog a wax sàcc bu jigéen bi ba tey ñuy waxaat ci wàllu googu mu ne wa quddimat xaytu kaana fi dalika zamani zina nisaai fashin wa kunna mujahiratin bi dalika ne ne itam wàllu njaaloogee ne ne bokk na ci saw yi nga tax yi tax ñu jëkk koo tudd ba tey ne na jamono jooje nga xam ne ji alxuraan day wàcc dafa fekk ne jamono jooje dafa tombeek booba jigéen ñi ak njaaloo bari woon lool lool lool ci ñoom te it dañoo nekkan ñoo xam ne ñi bañ koy njaaloo di ko def itam maanaam nëbbuñu koon maanaam dañ ko defan loo xam ne li maanaam dafa mel ni dañ cee amoon ab sañ-sañ mu nekk lu baax ñu di ko feeñal di ko biral bari mu bari ci ñoom lool ñoom jigéen ñi nee na bokk na yi tamit ci li tax te alxuraan ji wàcc noonu mu daal di jiital njaalookat bu jigéen bi dog caa teg bu góor bi daal di waxaan ne loolu kon ay na bu ko defee beneen laaj bi lim ci tegaat ci wàllu googu muy laaj nag waaw lan mooy loraange yi yoo xam ni mën naa am ci ak njaaloo ak lan mooy ay loraange yoo xam ne yii mën naa am ci ak càcc foofu itam balañ ciy tontu dañ koy wax ne ko fële bu dee ci wàllu njaaloo gi la ak sàcc gi yépp dafa araam bu dee ci wàllu njaaloo la bi ko yàlla waxee da caa teg la nga xam ne lii mooy atte ba waaye bu dee ci sàcc la itam bi ko yàlla waxee daa wax lan mooy atte ki sàcc nu ñu ko war a def mu ne azaniyatu wa zani fajlidu kulla waxidin minhuma mi'ata jaldatin ne ne sa njaalookat bu jigéen bi ak bu góor bi kum ci mën a doon ci ñoom ñaar na ngeen leen dóor téeméeri yar ñu koy tudde té yari yoon ñu koy tudde yari yoon kon loolu mooy atteb ku góor ki njaaloo wala ku jigéen ki njaaloo te maanaam amaguñu soxna loolu lañ leen di attee ci charia bu fekkee ni charia la ñuy attee ku ci nekk dañ lay dóor téeméeri yari yoon waaye bu fekkee ni ki njaaloo jigéen gi dafa njaaloo fekk dafa am jëkkër kooku moom ak dañ ko war a sànni ay xeer ba mu dee bu dee góor la itam am jabar maanaam am soxna njaaloo dañ ko war a sànni ay xeer ba mu faatu kon ñaari atte yooyu daal moom lañ teg ci wàllu njaaloo bi bu dee ñaar ñoo xam ne ñii maanaam jigéen gi amul jëkkër góor gi amul jabar téeméer yar lañ leen war a dóor bu dee ni nag jigéen gi daa am jëkkër wala góor gi am jabar ku ko ci def rek maanaam dañ la war a sànni ay xeer ba nga faatu bu fekkee ne ci wàllu atteeb sàcc la itam yàlla dafa wax ne wasaarixu wasaarixatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nee na bu dee ni sàcc la nag alxuraan lam ci teg ci ate mooy sàcc bu góor bi ak sàcc bu jigéen bi ku ci sàcc rek maanaam nañu dagg ab loxoom loolu moom mooy atteeb sàcc bu ko defee boroom xam-xam yi ne lu tax yàlla ne ñee bu ñu njaaloo nañu bu dee ni njaaloo te fekk takkaguñu maanaam kenn ki amul góor gi amul jabar wala jigéen gi amul jëkkër nañ leen dóor téeméeri yar waaye bu ñu bu góor gi amee jabar wala jigéen gi am jëkkër su njaaloo nañ leen sànni ay xeer ba ñu dee ne ne te bu dee sàcc la ñu ne nañu dagg seeni loxo ba tey loolu itam lu tax noonu ñaari at yi safaanoo noonu boroom xam-xam yi daal di tontuwaat ci laaj boobu ne li tax yàlla ne nañ dagg loxo bu dee ci wàllu sàcc la ne ne bu fekkee ni dagg nañu loxo ki sàcc loolu loxo day feeñ ku gis ne kii kat da doon sàcc ñu dagg loxom bii su boobaa dina mën a moytu loolu waaye ne ne bu dee ci njaaloo la li tax mu ne nañ leen rey wala nañ leen dóor téeméeri yar yoon mooy cër bi nga xam ne bii day njaaloo moom dafa làqu su fekkee ne dañ koo daggit maanaam mën na boroom mën na nëbbutu ñu baree bari duñu xam ne moom dagg nañu kanamam googee ne ne gis nga ci charia ak alxuraan ni muy leerale gis nga ne ne bu dee ni cër boobu la du digle ñu dagg ko ndax dafa nëbbutu te ñu baree bari kon duñ ca mën a jàjjoo ba mën a moytu loolu te it cër boobu itam dafa am solo ci wàllu yokk aw askan ak ay doom ak yooyu ba tax na maanaam diglewut ñu war koo dagg bu fekkee ni dañoo def ñaawteefu muy njaalo waaye bu dee loxo la nag moom dafay nekk lu feeñ loo xam ne lii ku ko gis ñu ne keekat dafa sàccan bañ dagg loxo ba gis ne loxo bi dagg na dina ca mën a tax ñu bare bare bari dootuñu def ñaawteefu muy sàcc su ko defee nag ñaar yooyu yëpp nag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam da cee wax ay xadis yu baree bari yoo xam ne yi ci araam yoo xam ne gi da koo araam ndax ñoom ñaar yëpp nag dañoo bokk ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne yii moom la yàlla noonu su ngeen góorgóorloo ba bañ ba bañ koo def ma jéggal leen seen bàkkaar yu ndaw yi mooy intantahu an kabaira ma tunhawna anhu nu kaffir ankum sayiatikum kon daal yaa ñaari ñaawteef yi daal muy sàcc ak njaaloo ci bàkkaar yu màgg ya yu màgg màgg yi la bokk nañ ko jéem a moytu bu baax a baax a baax te xam ne sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne laa yasriqu zani laa yazni az-zani xiina yazni wa huwa mu'minun wala yasriqu as-saariqu xiina yasriqu wa huwa mu'minun yi nga sallallahu alayhi wasallam ne ki nga xam ne kii daa dem di sàcc na xam ne jamono jam demee di sàcc moom dindi na ak gëm yàlla ci xolam teg ko ne nga xam ne jamono ji muy sàcc moom doonut ab jullit ab yéefar la kon bu demee di sàcc yàlla dogal mu faatu ca biir sàcc ga maanaam day dee dee koo xam ne kii ab yéefar la yàlla nañ ci yàlla musal ne na itam kii njaaloo na xam ne saabu li jëndee njaaloo ko ba dem di njaaloo itam na xam ne àndatut ak a gëm yàlla dindi na ak gëm yàllam teg ko ne kon bu yàlla dogalee it mu faatu ca biir njaaloo ko na xam ne dafa dee dee goo xam ne gi ab yéefar la maanaam yóbbaalewut ak ngëm yàlla loolu nag yal nañ ci yàlla musal dara jaru ko teyit dara wóoru ci nag ndax dee moom jamono ju ne la mën a dikk nu ne la mën a dikkee itam kon daal ñaar yooyu dong ñaari xadis yooyu mu wax ci lu baree bari nag dong war naa tax ñu war koo mën a moytu ngir gën a sàmm suñ gën a suñu jaamu yàlla gi yal nañ ci yàlla doon defal tawfiq kon liñ ci tegaat rek mooy atharu zina wa mafasiduhu li nga xam ne li njaaloo mën na ko def ci ay loraange ak li njaaloo mën a yàq dañ ci tudd lu néew rek ne ne bokk na ci loo xam ne lii daal njaaloo dana ko def ci nit ki mu nekk lu baaxut ci moom maanaam mu nekk loraange mooy irtikaabul kabirati minal kabairil muharramati bi ijmaa'il ulama bokk na ca boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci ne képp koo xam ne kii da ngaa njaaloo rek def nga bakkaar ci bakkaar yu mag yooyu nga xam ne dañ koo araamalan mu doon loraange ju rëy rëy ci wàllu diine daa di wax ñu tegtaloo ne wala taqrabu zina innahu kaana faaxisatan wa saa sabilan njaaloo moom yàlla sax ne wut bu leen njaaloo waaye dane bu leen ko jege xam nga kon jéem dane bu leen ko jege moom def nga moom kon warees na ci am mën a bañ àgg ndax soo ko jege ñun rek maanaam doo ko def te yàlla ne wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo mooy lay waajal njaaloo lu ya koy jiitu lay wax bu leen koy def kon yooye soo ko bàyyee rek maanaam doo àgg ci njaaloo te njaaloo moom fu mu amee rek maanaam am na fu muy tàmbalee yoo xam ne ca ñu ca la ñuy tàmbalee di ko def ak di ko wax ba kere muy àgg ci njaaloo loolu nag la alxuraan la wax ne bàyyi leen ko bu leen ko jege xam nga yooyu bu amul rek kon njaaloo du jeex ndax ne ne njaaloo kat kaana faasatan ak caay caay la wasa asabilan tey ne ne aw awkaay la aw yoon la woo xam ne wu bon la wu ñaaw la woo xam ne bii day yàq nit ki lu baree bari ci wàllu diineem ak ak dundam ak aw jëmmam bokk na ci tam loraangay njaaloo irtikaabul faaxishati allati taj tajlubu as-sayyi'aati neneen njaaloo dal aw ñaawteef la woo xam ne bii ak caay-caay loo xam ne bii ku ko tàmm di ko def dañuy gis ne day gën di nekk ab saay-saay rek di gën di bon di gën a yées di gën a woon ginnaaw ak jaamu yàlla waaye di gën a sàggal rek di jublu ci loo xam ne lii lu neexut yàlla la ak ak mooy yàlla la loola la ko njaaloo ga di xiir bokk na ci tam mu ne az-zina sababun li jalbil amrad alxatirati walati tuassiru ala al badan wal qalbi wan nafsi ne ne bokk na ci loraangay njaaloo ne ne nit ki njaaloo ay feebar yu garaaw a garaaw mën na ko coo dale ay feebar yoo xam ne day dem ba day jaxtal ci aw yaramam maanaam yàq aw yaramam yàq ay cëram waaye itam mën naa dem ba yàq ab xolam lëndëmal ko ñuulal ko tilimal ko ba nit ki bu ñu gisee ne am njaaloo kan la dootul mën a jaamu yàlla waaye itam jëmm ji ci boppam dañu gis ne moom muy njaaloo day dem ba njaaloo gi da ci jeextal ba jëmm ji sax day yàqu day gis dañuy gis ne kii moom genn ler rek maanaam nekkut ci moom wa huwa sababun li fatxi abwaabil maasi wa zulmi nnaasi wa idaatil ahli wal maal te ne bokk na ci loraangee njaaloo ne ne kii njaaloo day yomb ci moom bunti mooy yàlla yépp yépp day daal di ubbi ko ci kanamam yomb ci moom lool waaye itam dañuy gis ne kuy nekk kuy tooñ nit ñi la tooñ ko nga xam ne gii yàlla dana ko tere woon waaye itam dañoo gis ne njaaloo yi itam ki koy def day sànq njaboot gi maanaam day jaxase aw askan dooru ñu xam askan woon na mu war a na mel dëgg-dëgg dooru na mel waaye itam gis nañ ne njaaloo day doon loo xam ne lii lu mën a yàq alal la ndax dañu jël alal joju di ko fere ci fànn goo xam ne gi dafa araam te su boobaa loolu ak sànq alal lay doon goo xam ne gii njaaloo ga moo ko sabab waaye tamit bokk na ci mu ne wa musabbibun li ghadabillahi wa sawadil wajhi yowmal xiyaamati wa zulmatil xalbi wa dayxi sadri wal kaabati fi dunia ne ne itam kii njaaloo na xam ne ma ngay def loo xam ne ni day sabab merem yàlla muy li ci gën a garaaw waaye itam dañuy gis ne dañoo jàng ne bu bés pencee ñi nga xam ne ñi ay njaalookan lañu seen xar kanam ya day lëndëm kris day ñuul kukk kukk kukk waaye itam seen xol yi itam day nekk lu lëndëm loo xam ne lii genn leer du ci dugg ba ñu mën a jaamu yàlla waaye tamit day xatal ak dënn waaye tamit day tax nit ki day dem ba su tàmmee njaaloo googu fu mu nekk rek ci ay njàqare lay nekk di ko dund loolu yàlla ci yàlla musal kon loolu itam ab tënk la rek ci li nga xam ne dafa aju ci wàllu loraange yi nga xam ne moom la njaaloo lamboo mu bari lool lool nag booy jàng téere fiqh yi booy def ay gëstu lu bare bari da nga ko ci gis loo xam ne di daal loraange ya bari na lool lool bu dee ci wàllu sàcc la itam mu ne aasaaru sarixati mu ne tuaddu sarixatu min al jaraimi al xadimati wal muntasirati munzil xidam ne na nag sàcc moom ne na ci kirim yi gën a garaaw la bokk ci bàkkaar yi nga xam ne yu yàgg la nag ñu tàmm ko xam ko ci àdduna waaye tamit ne ne lu yàgg tasaaroo la ci bu yàggan kon nee na sàcc moom bàkkaar bu rëy rëy la kirim bu rëy rëy la waaye tam lu yàgg tasaaroo la ci ànd ak jamono su ko defee nee na bokk na ci ay jeexkanam mu ne min al asaar al asaar min xaytu al iqtisaad axsu ijazatin min al amal allazi xad yu addi ila xasaarati al amal nee na bokk na ci loo xam ne lii loraangay sàcc la bu dee ci wàllu sakkanal la alali alali am réew wala ab gox wala doomu aadama bi ne ne bu dee ci wàllu woowu la ne ne axsu ijazaatin min al amal maanaam nit ki ñu embauché ko di ko liggéey mu di ca jël ay neexal ne ne loolu dañ koy jàppe wàllu sàcc la ne ne te ndax loolu bu ko nit ki def day dem ba liggéey boobu maanaam mën na xëy rek maanaam day perte maanaam ña yore ña moomi liggéey ba dañuy dem ba dañuy perte ndax neexal ya nga xam ne yii ñay liggéey moom lañ cay jël di ko boole lañ leen di fay day dem ba bàkkaar bu mën naa gàllankoor liggéey ba bokk na ci itam ci loraangay sàcc alxasairul madiyati bil mumtalakaati asnaa xaadisati sarixati nen itam yi nga xam ne nit ñi dañ koo moom moo xam kenn moo koy moom wala mbooloo bokk ko mu doon alali àdduna yoo xam ne ji dañ koy moom ne ne bu fekkee ne càcc da cay dugg mën nañoo dem ba loola day yàqu day perte loola ñu ñàkk ko bu fekkee ni ak sàcc dugg na ca bokk na ca gàllankoor ya ak taarudu lil asaari al iqtisaadi yi allati xad tusibu baad alsharikat wal afraad innama takunu bi sarikati al amwal ziyadata ziyadata nisbati al faqri innama takunu al masruqat min al maal al aam ne bokk na ci tam ci wàllu économie ba tey day war sàcc dina tax alal yi àdduna alal yi réew moomu wala gox boobu day am jafe-jafe yoo xam ne ji mën na dem ba ñi nga xam ne ñi ay société lañu ak ay entreprise lañu ne ne bu ca càcc duggee rek dañu dem ba entreprise yooyu ak société yooyu mën a dem ba day daanu ngir alal ja nga xam ne ji moom lañu fay sàccee tam waran di dundal loola day dem ba entreprise boobu wala société boobu dootul mën a dox su ko defee ay nit ñu baree bari nekkan ca di liggéey dootuñu am lu ñu liggéey su ko defee mu doon yàqu réy réy boo xam ne kii la ko sabab moo di sàcc rawatina nag bu fekkee ni alal joo xam ne ji maanaam waa réew mi ñépp dañ ko bokk muy wàllu gouvernement ne ne bu ca sàcc amee rek foofu moom muy gën a garaaw ndax bu boobaa moom maanaam réew mépp lay daj maanaam ñépp ñu dëkk ci réew ma dañuy yëg ni daal gouvernement bi sàcc nga xam ne gi moo ci nekk daal maanaam ñépp yëg nañ ne am na jafe-jafe ndax dañuy gis ne dara dootul yomb lépp day jafe su ko defee dañ ci am ak jaaxle gu mag a mag boo xam ne gi day dal waa réew ma yépp kon loolu itam bu dee ci wàllu économie la ne ne sàcc daal dina ci indi gàllankoor yu mel noonu ak yu baree bari yoo xam ne mi ngi ci wàllu googu bu dee ci wàllu sàcc la itam ba tey bu dee ci ay gàllankoor ak ay loraa nga xam ne mën na koo defal nit ki nga xam ne kii day sàcc mu ne alxawfu wal ghadabu minal masruq ki nga xam ne kii ab sàcc la daal mën naa sabab te day sabab sax nag ak tiitaange ak mer moo xam ne mii day tukkee ci nga xam ne kii moom la ñu sàcc alalam xam nga ne nit ki bu ñu sàccee alalam maanaam dina mere lool ka ko sàcc waaye itam dina tiit lool ci boppam ngir alalam jooju nga xam ne ji da ko am te gis ne ab sàcc nga ñëw di ko sàcc da cay day daal am tiitaange lool nekk loraange joo xam ne ji bàkkaar bu mag a mag da cay amee te loolu day wëlbatiku delluwaat ci sàcc yi nga xam ne bii moo sàcc alal jooju ba loolu am bàkkaar yooyu yëpp ci moom la jëmaat moom sàcc bi bokk na ci tam ashuuru bi adamil amaani wa tawajjus min iadati sariqati maratan uxra ne itam bokk na ci loraangay sàcc yoo xam ne day dellu ci jëmm ji sàcc mooy day dem ba nit ñi dootuñu am benn kóolute maanaam dootuñu am ak dal te it dañu daal di nekk ñoo xam ne fu ñu mën di nekk rek dañuy xalaat ne kii di sàcc alal ji kat su ëllëgee dana dellu si bu ko defee loolu day daal di indi yàq bu baree bari ndax ne ne su loolu day am rek nit ki di ko bàyyi xel ne ah sàcc bi kat xam naa dina dellu si waat sàccaat ne ne xay su asiru ala noom yi nga xam ne day dem ba da koy yàqal ay nelawam wal kaaba day dem ba day am njàqare moom kooku ñuy sàcc njàqare goo xam ne gii day dëkk ak moom rek di ko dund mu doonati bàkkaar bu màgg a màgg boo xam ne bu rëy rëy la waaye itam day dem ba sax moom mi nga xam ne nii moom la ñu sàcc alalam mën naa dem ba am feebar boo xam ne bii da koy dal ci aw yaramam waaye tamit dem ba mën na ko andil ay jafe-jafe yu baree bari yoo xam ne daal alalam jooju ñu sàcc maanaam ci la sababoo te it loolu day doon bàkkaar boo xam ne bii day dellu ci ko xam ne kii moo sàcc alal ja waaye tamit bokk na ca intishaarul masaakilil aa'iliyati wal mushaajarati bayna afraadil aa'ilati ne ne bokk na ci loraangay sàcc itam bu fekkee ci wàllu famille bi la mën na faa tàbbal ay jafe-jafe yu baree bari ak ab xuloo ak am ŋaayoo boo xam ne bi mën naa nekk ci diggante njaboot googu ndax loolu la ko sa mooy ne ne li taxmili kulli fardin mas'uliyata sarixati lil fardil axar bu dee ci biir famille la ñu gis ne am na ci ñoo xam ne ñu ay sàcc lañu wala koo xam ne kii ab sàcc la di sàcc ci biir famille bi noonu day daal di tàbbal ak noonoo ak am ŋaayoo ca biir famille ba ba ndax ku mu doon te ñoom da ngay jàpp ne diw mii kan mooy sàcc alal wala ñii ñooy sàcc ci suñu biir su ko defee loolu su nee ci biir famille rek maanaam booba famille moom dañuy daal di am jafe-jafe boo xam ne bii lu ne mën na ko dugal ci seen biir ci ak noonu nga xam ne nañu war a dund dëgg-dëgg dootuñu ko mën a dund bokk na itam isa baatun jasadiya ida xasala tawajuhun bayna saarixi wa daxiyati ne ne bokk na ci loraangay sàcc itam ki nga xam ne ki dafa sàcc ki ñu sàcc alalam su ko yëgee su ko gisee jafe-jafe bu baree bari day am seen diggante ndax mën nañoo songoo di xeex ba kenn ki lor ca moroom ja te ne loolu la la ko sama mooy sàcc yi nga xam ne gi moom la kii sàcc te loolu moom ku ne xam na ne ku kuñu ku ñu sàcc bu gisee ko ko sàcc moom maanaam du bàyyi sàcc bi muy demee loxo neen waaye fa mu jëm ñaa def ay pexe ne ne pexe yooyu muy def nag la ci ëpp mooy dañuy songoo ci wàllu ay ngànnaay yooyu te bu boobaa loraange mën na caa amee beneen bi ci toppaatin ci loraange yoo xam ne sàcc mën na ko am te ci la ñuy taxaw incha allahu ndax bari na lool mooy te bu ñuy xool mooy bi ci gën a garaaw te bari lool mooy musée mu ne isa tammat sarixatu awraatin subutiyatin aw xukumiyatin sawfa yatimmu bazlu juhdin wa waxtin li iadati istixraajiha wa isdaari badalin minha ne ne sàcc bokk na ci la ca gën a garaaw mooy wàllu ay këyit maanaam nit ki bu ñu sàccee alalam fekk loolu defan alalam ay këyitam da caa ne këyiti jëmm ya mooy yoo xam ay identité ay passeport ay këyit yoo xam ne daal këyit la yoo xam ne yu ama am solo la ànd ca alal jooyee maanaam xaalis boobu ñu sàcc ne ne day indil borom ay jafe-jafe yoo xam ne yu gën a garaaw la ndax dina boole alal ja nga xam ne ji moom lañ ko sàccal mu métti ci moom lool waaye la ca gën a garaaw mooy këyitam yooyu nga xam ni moo ko yitteel nga xam ne daanaka mooy doxal ak dundam ci wàllu adduna bi ñu boole ca këyit yooyee yóbbaale ko ca càcc ga ne ne loolu moom mooy doon li gën a garaaw li gën a métti ndax loolu moom saa bu amee lu alal ja bari bari rek day mel ni borom day fàtte alal ja waaye këyit yi rek moo koy yitteel naka lay def ba amati ko waaye tamit bu dee ci wàllu gouvernement bi itam bu ñu duggee ci société yooyu ak entreprise yooyu sàcc fa mën nañ fa yóbbu ay këyit yoo xam ne yii këyit yooyu bala ñu koy amaat di ko lijjantiwaat maanaam dinañ ca am coono bu baree bari waaye itam dinañ ca sax waxtu yàgg a yàgg ngir génnewaat kër yooyee ak tàmbaliwaat di ca liggéey kon daal lii tamit lenn la ci ay loraange yoo xam ne yii mi ngi ci biir ak càcc te it nañu xam ne yi mu doon yi mu doon lim yépp lu mu ci mën di doon day doon ay bàkkaar yoo xam ne yii da ciy am te bàkkaar yooyu yëpp nag suñ ko boolee yépp dañ koy delloo ki nga xam ne kii ab sàcc la kon daal ñaari jikko yi daal lu bon a bon la ci charia lu baaxut ci ni la muy wàllu njaaloo ak wàllu sàcc ak yana demee kon yal na nu yàlla defal tawxe ba duñ ci yittewoo dara duñ ci jéem a jëfandikoo dara jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Yeah.